jàngal leen ñoo la ñaanoon benn bés bu nu moom nga di fa daje ak ñun ñuy tëgg ci yow nga dina jox suñu programme annuel ma ko loolu nag du mën a fomm te kenn du la ko mën a remplacer mu tax bi mu ñëwee te nekkoo ñu fomm ko ma ne ko muy bés boo xam ne nag dañu ñaan defe fii ci kër jëmb ndax taalibe yi nga xam ni yar nga leen jàngal leen orienté leen kenn jiitu ci alaaji Njaase ñu ñaan la di ko defe fii bés bi ëpp na bésu alaaji Njaase xam ngeen ko nun njabootam noo ko ko ñaan ñu ko ane bu jot bëgg nañu gis loo xam ne da ngay daje ñi nga yar jàngal leen nga jox ñu suñu programme annuel orienté ñu ñu topp ko di ko suivre ba déwénati nu dajee te nga wax ni li nu war def nu continuer ndax li nu fasul yéene moo di nu nekk njaboot buy fétal toujours njaboot buy tënku ñuy doon di topp programme di topp orientation ak directive yi mu nuy jox at mu jot nag fii lañ koy joxe ñu dajawaat fi pour dégluwaat loolu mu mel na kon nag li am solo moo di ngeen ubbi seen nopp taataan seeni xol euh, lu mu tracé rek mu jar ko ba ba ñu dellu seeti déwén yàlla nañ ko teewe mu nekk ñu nii la bu ñu nii la rek ñu noonu la waaw kala suma mbubb mi li muy weex weex ku ñu woon dafa ñëw dama naan dafa ñëw moom moo am gis-gis waaye ñun duñu am gis moom mooy am programme mais ñun duñu am programme moom mooy tracé waaye ñun duñu tracé su ko defee nag kon daje ti nañ fi yal nañ fi yàgg daje moom itam mu yàgg fee teew déglu ko ak sunu nopp taataan ko sunu xol lu munu tracé lu jàpp ci ba bañ koy gis ndax tabaarakallaahu yombul am kilifa mu man la tracé te la mun a tracé bi sa njëriñ rawatina nag loo xam ni mag wax na ci ñaan ca mu di sëriñ Babacar Si moo ma ni woon wax naa ko ni ko lu mu xalaatati ci kër gi na ko doxal ñaanal naa ko ci it yàlla loola nag muy wéy ba faaw te booba gouverneur Lamine ngi toog mu wax ko nuy waxtaan naa ak moom ak Lamine mii jox naa ko ordre lu mu xalaatee ci kër gi na ko doxal may naa ko ci ndigal ñaanal naa ko ci yàlla looloo tax ñu di ko jàppale xamoo nga demee kon nag mu dajati fi pour taataan déglu orientation yi ñu jox ak directive yi su fi jógee ñu gudd ko topp kenn ko nekk ci ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu ak sëriñ bi ñëpp ñëw nañu taalibe yeeg xarit yeeg njaboot yi ñëw nañu suñu benn doomu bàyyi nga nële di doomu sëriñ cene ba mu yabal ci ko mu ñëw teew si kilifa yi ci des nag yow yaa leen di wax noonu rek lañ ci amoon lu ñu doon wax pour ngeen déglu ànd ak dal ànd ak teg ba mu wax ni lu ñuy wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tey jii tabaarakallah fay na ko benn gërëm yàlla yàlla kontaan loo leen sëriñ bi nu ngi lay jotal ay ngërëmam ak i ci wàll gi di la jotalit wax dëgg yàlla coono président de la république ci mbir mili ndax bañ ñoom itam waa Jubaas ñu ngi leen di sant eh, di leen sàkkul ak ñaan di ñaanal yàlla ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bu dee ci wàll dox bu dee ci wàll wax bu dee ci wàll kër këri bu dee ci wàllu coono ndax ñii ko fi def tey yépp ginnaaw yàlla ñoo ko fi def ñooñ ñooy sunuy doomi bopp yi nga xam ni Muhammad Mustafa si moo ne ca biir te njiit njiit la ci ginnaaw yàlla ànd na magam ju baax jële te mooy al mustarshidin wal mustarshidat wax dëgg yàlla def na ci mbir def nañ ci mbir mi loo xam ni nook ñoom ak yàlla noo ko xam nook ñoom ak yàlla noo ko xam waaye wax dëgg yàlla lépp luy rafetal ci wàll gu nekk wàllu jëf wàllu wax wàllu dox lu leen ca war dañu ni mag ñu nañu toog nun noo koy defal suñu bopp am naa loolu sax moo tax wax dëgg ñoom jaral nañoo defal daal benn motion ñaan boo xam ni tey nag insha allahu nu koy def ndax laq nañu suñu bopp bii wéer suñu kaaba bi ca miiru kaaba yàlla ga jël rido yàlla ba rido rido kaaba yàlla ga muuroo ko ñaanal al mustarsidiina wal mustarsidaat li leen ñaan yéen ko yàlla mu di ñaanal waa kër jëmb ñi nga xam ne ginnaaw yàlla ak kër baara kay rek dëkk yi fi wër ak jubaas yépp nag eh, di la xamale ni si lii nu eh, ngi ñaan li alaaji Malick Mbay sama mag ju baax jii may wax ci làmmiñam wax alaaji Malick Mbay noonu la fi benn bis ñii dund bëgg na ñi dee bëgg nañu ñii dund bëgg na ñi dee bëgg nañu bu nu fàttalikoo góor gii tey fii nga nekk bala néegam tollu woon te da daan ci waawoon jële ca maa ngi fàttaliku benn benn tawasul bu mu ca jële woon suñu jàngee suñu darsi alquran ba mu mokk mu ne doom na ngeen jàng da na ngeen bi ndax am na njëriñ xasiida ba nit nit taalibee ko woyoon Cheikh al Khalifa di ca wax axis ni yaa aba bakrin habibi axis ni yaa وأحسنت الخلافة يا حبيبي عن الممنوع يا منجي الكئيب أتاك الخلق بعد الأب حقا ألوفا بل وفودا كالشكوب فأنت القطب يا مير البرايا ويا قوت القلوب لدى الأريب نجاك الله من كيد الحسود وفم سوء مع كل الخطوب أطال أطال العمر من يحيي الرفاة وفقت الجيل من غير التعوب من ولد كذا المنصور وعبد العزيز ولا ننسى المسمى بالحبيب هم السادات هذا الدين صادوا بهم تحيا طريقتنا اللذيذ بني موكل لولو أما بن ديزان تكانت جنة سموك ليس من القرآن مصالكو لولي تواسى بمضان السرين باو كرسي رب لا تلعن يا كارناني وحدك يلا آه، يلا من نقول سترال تبركم يتبيه تجمو جتب جي تيوفي ndax sëriñ Cheikh Moustapha daana fi ñëw sëriñ Aliou Fall daana fi ñëw sëriñ Mbaye Sall daana fi ñëw waaye nag jëmm ji sant si waxuma laa nag barakallahu ah alhamdulilahi rabbil alamin wax dëgg yàlla kon daal barakallahu daal foofu laa ci mën kon nag si ñu ngi lay xamal ne suñu xol sedd ko yàlla jox te jox nu leen nu dikk di fi gan di fi dëkk di waxe itam sang yi nu yàlla jox tariqatul lahiniyya muy sunu mbokki layeen yi ndax ñoo moom daara ji ku wax ci daara ji te waxuloo ci seen tur yàq nga wax ba mel ni kon nag ñoo daje bi seen barke fi nekk seen lamiñe fi nekk seen njàng fi nekk seen alluwa fi nekk seeni njaboot bi nekk te kat barke mën na lu doole mënul waaw barke waaw maanaam barke mën na lu doole mënul mu mel ni kon nag seen kàddoo fi nekk seen barke fi nekk seen ndonoo fi nekk lu mat a xam la ndax dafay lu réew mi am ku ko xam-xam na ko ku ko xamul itam war na ko jéem xam ndax ndono lu am solo la bu loolu paase nag itam nu ngi toog ak sunu kilifay bopp tey sunu mbokki bopp ñaar ñu ngi fi nekk ci biir gouvernement bi nekk ay ministre di jàppale président Abdou Diouf kii ci sama jor moy sunu doomu najay papa mo soxna astukan sen ñaari mam ye ya bokk ndey ak bay mu Cheikh Hamidou Kan bi tok du tax nga song ko daaneel ko ludul danga nekk aji gëm du am jom moo tax am jom baax na waaw mu mel na président itam boole nanu ak Cheikh Saad Boudjouf Diouf moo di gouverneuru région bu bees bi di xarit ci Serigne Abdoul Aziz Dabba te Serigne Abdou kuy xaritam sunu xarit la mi ngi ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp tabarkal ci autorité yi ah mu ngi ànd ak sunu jarbaatu bopp bi mu di Christian Valentin mi ji toog ndax ñoo Serigne Babacar bokk ca Ndar moo ni wutal ma avocat famille wutal ma avocat famille ma ni ko kenn nga ci am mu ni ma kan ma ni ko entrée qui arrière mu ni ma wax kay doy na ma sëkk waaw lu mas a xew ci famille bi te bëggul ku ko xam mu jox ma ko ma daw jox ko ko mu lijjanti ko te ma sàmb du ci bokk ma dem du ci bokk famille boobu la ñuy doxal tabarkalla tabarkalla ak Cees yi ci nekk député nekk maire nekk ku am yitte taxaw ci politique taxaw ci syndicat taxaw ci daara taxaw ci jàkka taxaw ci jàng taxaw ci defar taxaw ci baax la ñépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam Sëriñ Abdu wax na Xaaji Njaase wax na ni ñu waxe ku nekk mën na ko dégg tabarkalla yàlla na yàgg fu mel na bëccëg la boo xam ne xat na wante sunu doon gise rek kenn ku ne ni moroomam yàlla na nga dund doy na ah dafa am boroom te lu am borom nag dangay ngay seet ka ko moom baat bi tax nu di ko doxal tabarkalla ñi ko moom yeyoon na ci ñoom ñu doxal seen baat ci jamono ndax sunu mbokk bu gaañu yàgg na te nekkoon ci rajo bi ñu di ko wax alu alu mu yaboon ma lool ci jam ak waxtaan ak caxla ni ma dafa am lu ma la bëgg laaj ma ne ko lan la mu ni ma sëriñ Babacar Si ragal na yàlla wala ragalul yàlla ma ni ko ah, wóoruma mu ni ma lu tax ma ni ko dama duggul ci xolam te ragal yàlla ci xol lay nekk ma ko lenn daal laa ko mën a waxal mooy mag mu yiw la mag mu yiw la mag mu yiw nag boo séqeek moom baat baat ba te ca doxal yiw wér na loolu moo nu fi boole moo nu fi boole it dajale yi di ko def at mu nekk Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu nee ragal yàlla duma taxa ñaan gàtt fan yàkkam ci àjjana rek tax nga ñaan gàtt fan wóorul téere yi ak piri yi dafa am lu ko ëpp doole mooy namm namm yàlla moo tax Isa bnu Maryam wax ni yàlla diggal na sama xeet aljanna waaye ku ci dekk itam gis caru olive ci sa loxo jëmbatal xam ne àjjana jotagul yan si yàlla muhammad wax ni yàlla dig na sama xeet aljanna waaye ku ci dekki ame caru tàndarma jëmbatal booba aljanna jotagul waaye li dàq aljanna nag dàq dekki ci teranga la ko dàq mooy wóolu yàlla am na koo xam ni dinga ko wóolu ba boo yendoo këram bo añu nit sa yoon nekku ci waaw waaw boo noonu rek la demee mel ni président wàcc na tabarkàlla li ko war yëpp def na ko kilifaam yu baax yépp teew nañu li mu man def na ko àdduna nag dafa metti dafa xat ku sàkku lu bare am lu tuuti noonu la deme walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi yàlla ne li ngeen ma ñaan yëpp yomb na ma bu ma ko joxee loo benn yoon ngeen bew yéen ñëpp taxit dama koy joxe ci wàllu xikma danaa fexe ba ngeen wordu danaa fexe ba ngeen añ danaa fexe ba ngeen naan waaye bew nag ba kenn du la mën a jariñoo du ma ca fekk lu ma ta bàyyi xel ndax ki ñu jox lépp mu dee bàyyi ko fi lu mu ko doon jëriñ lu mu ko doon jëriñ ki ñu jox lépp mu dee bàyyi ko fi lu mu ko doon jëriñ yonent bi bi muy laata xarxarle xarle pour wuy ji boroomam dafa ni sayidatuna Aïcha lu fi des mu ni ko nangam mu ni ko sarxe ko mu génn ci jikko jigéen ni bu nu ko sarxee du nu am lu nu dunde mu toog ba mu yàgg am lu mu yëg woo ko ba mu ñëw mu ni ko li nañu ko sarxe ndax sarxe nga ko wax ko ko bu dëgër mu di diital mu ni ko na ko sarxe bu ma yóbbu fu ma neexul te yéen jigéen yéen ngi dëgër bopp waxin wa waxini doomu bàjjan la mu ni ko inna kunna axawaatu yuusuf mu ni ko coono ba jigéen ña tegoon yonteel yuusuf ba ñu tëj ko kaso jigéen ñooña yéena di seen mbokk de waaw waaye fekk na du ayibi jigéen gu jigéen li mu nangu dafa bare kon nit fokk yàlla am fu ko jaarale euh, la waykat ba wax ni bu ma àddoo ñu tiit bu ñu lamsalee ma tiit amul waaw ah. nee na bu ma àddoo rek jub waaye ñoom àdd du leen ca fekk dañuy lamsal rek man mu xam bu yàgg defee ci seen barke jàmm man na ci am ki nga bokkal diine jàmm mën na am ki nga bokkalul diine jàmm mën na ki nga bokkal tariqa jàmm man na am ki nga bokkalul tariqa jàmm mën na am ku ngeen di xëccool yàlla wala seen bopp bu yalla yalla yàlla la ba tax mën na nekk alaji Maodo si la bi tok di iliman ca ndakaaru ma ko ni lo yek rek sunu mbokk catholique yi def dem ca monseigneur Thiandoum ñu di ko def cardinal mu ñibbi si ma ne teraanga ñëpp la woo doomu Serigne Babacar si ni ko demal ba ci biir église ba ndokkeel ko waaw ba tax na jàmm jàngi fi de jógu fi waaw jàmm jàngi fi jógu fi tabarkalla tabarkalla yàlla dinu ko boole yombul na nu ko jël alaloo ko jariñoo ko def ko muy sunu ndono waaw te di ci bàyyi xel mu mel ni kon nag sunu bokk yi fi daje di ay ilimaan sunu bokk yi fi daje di ay sëriñ suñu bokk yi fi daje tey président yi daayira suñu bokk yi fi daje tey wëllëre te xarit amee seeni métier amee seeni responsabilité di góor ba ak jigéen ba mag ma ak ndaw la ndax xale yu tuuti Sëriñ Babacar ngi ci feebaram ci mujj dundam xale yu tuuti jël seen kaar jóge ndakaaru ñi fukki at ñi juróom ñett seen yaay yaa ngi leen dogal ay robb yu weex solal leen gan yu weex ñu dugg ca kaar ya di sikka góor gi ñu ni ko mënuloo sax jóg bu baax fi mu ne waaye taxawal gis ñii mu jóg dox bu nànk ba tiim leen kenn ëpp ci fukki at mu ne ah, lii de junj la waaw ñooña ña ñu jur ñooy mursat si diin ak barkele yàllaa ko dogal rek alalu jàmbur la itam tudde ko xee xee ñu ni ko lu tax mu ni wurus bu ko xeej sàmmul mu sànku ñu boole ñaari téere ya móol ko cheikh ca penku di nit ku weex cheikh alxaaji omar ci sow di nit ku ñuul ñu boole seen ñaari téere yëpp mool ko xam ni ñoo bokk ndono waaw bés boobu nag bu ñu ko amee nu daje njaboot yi daje jant metti kenn yëgu poussière bari kenn yëgu fa tabarakallahu boo toogoon ñaari fan xiif doo ko yëg yàlla xam na ko wóllëre noonu lay mel fa tabarakallahu kon nag nu di leen yóbbante ci président biir ngërëm dina lu di waxtaan ak moom ci mbiri àdduna lu ne la ñuy waxtaan ak moom lu ne lu ne moom xam na ko nun xam nañu ko bu nu sañoon yépp nekk jàmm yépp nekk ci jàmm liggéey lay doon nag liggéey lay doon ndax Euh, sëriñ Babacar si nee na innamal mu'minuuna ixwatun bare na ku ko wax te déggloo ko nee na du xabar objectif la waaw da nga jëm bala noo bokkoo rek sox ko wax moo waral daje bi nag daje daara la sëriñ Abdou wax na dëgg nee daje daara pire la nu di fi daje waxante fi ay baat ku ne fas boo demee di ko nattanteeg xaqaiq yi ba diwéne noonu la de noonu la de te mag ñi ba moo tax mu dellu ci ni ñu ko daan defe ni ñu ko daan defe mooy lépp nag lépp nag Muhammad moom lépp lépp Muhammad moo ko te gis nga yàlla daf ko wax ci alquran moom Muhammad ni ko kilifa mënul ñàkk kon nag royal Ibrahim moo tax ko amul kilifa juum waaw ko amul kilifa rek juum nga yàlla moo wax ibrahim moo wax yonent bi ni ko moo di sa modèle waaw tëkkugul laqad kaana lakum iswatun xasanatun fi ibrahim moo jiitu laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana محمد نخلوك إبراهيم جلت جي نخلو يا محمد فتاكو أمو الكيلي فريك جنغ ألوى أبوك ألا الأبوك دقر بوكو أبوك يهوك أبوك محمد إبراهيم موي موديلا كنا خيب mu nangu ko lool yiw ca lool woyofal ko lool bu àdduna dalee ci kawam ba mu sonn ba sonn ba saali moom yonent bi mu jékki-jékki rek sukk dal di wax ni yàlla yàlla nga yërëm Moussa lañu ko teg teguñu ma fukkeel ba muy gore rek kon ku ne am nga koral ah rahimallahu moom la daan wax wallaay te bu sonnee la koy wax rahimallahu Moussa buñ ko dàqee dem kër najaay ja ñu tàpp ko dëkkatoo fi yi nga indi xamuñu ko xale bu toll ni yow juddookuloo di nu génn ci sunu yàllay xeer yii sa yaram neexul waaw dàq ko waaw gajj ko sànni ko doj yaram wi nàcc mu sukk rek ndax wax ni rahimallahu Musa teg nañ ko lu ëpp lii mu gore rek moo tax ku ne am nga kooram waaw ku nekk am nga kooroy mat na bàyyi xel nag waxuñu ni kenn ku ne am nga koo par parloo dañu ni kenn ku ne am nga kooroy du benn de du benn dañu koy jaawale rek waaw ñu ni jullit bu ko dégg déggi nu dëgg-dëgg di nga dem ba yàlla def ci yow ni baykat di def ci gugu suuna wu ko warul dañu jullit bu ko dégg te jëfandikoo ko dëgg-dëgg dinga dem ba yàlla jëfandiku ci yow ni jëfandiku baykat bu gubu suuna warul da muy jëfanteeg suuna wa yàlla dana dem ba jëfantekook yow baykat buruj ba noppi taal gisul dara jël dugub def ci suuf tooyul yàlla déggoog moom taw lëf ka génn yàlla sàmm ko ba gunóor lekk ko mu mucc ci nawet ba xëy di xale lu góor peppam fen bi ga tax ba jekk te dammul baykat ba jekki ba tàkkusaan mu ngelaw li dul mu ñëw euh dugub ba amna luy nekk ci xolam waye yalla it dana bàyyi julit mu judd fet dox xam waru garam mu topp ko ba bëccëg mu bége ci moom lu raw na baykat ba bége ci gubam woon waaw dana di am muhammadu rasulullah muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار loo ci mën loo ci mën ñu ni ko yàlla seetaan bi ngay seetaan sa gub wii ba nga ko bayee ba noppi ñu di ko tudde jullit lu tax nga bég mu ne mer mi ki juba di mer tey moo bégloo waaw mer mi ki juba di mer ci kii ndax nit bu melee na mu war a mel ci wàllu borom képp ku juba di bañ gën a yomb nga dégg ko waaw ndax tey yàlla wax yonent bi ni ko xoolal Ibrahim muy sa modèle wax jullit yi xool leen Muhammad muy seen modèle ëpp na julli ëpp na koor ëpp na at ëpp na azaka waaye melo wa nag yooyoo koy barkeel wax ji ku ko moom ouvrier bi ca atelier moo ko moom fonctionnaire bi ca bureau moo ko moom chef politique bi ca njabootam moo ko moom syndicaliste yi bi ca may ay mbokkam moo ko moom ilimaan bi ca jàkkaam moo ko moom sëriñ ba ca daaraam moo ko moom boo defee ni rekk dafa am ñu mu war wacc la xamuloo na nga toll ci yàlla waaw ñépp ko moom ba ci jigéen ji ci waañ wi moo ko moom ba ci jigéen ji ca rabukaay ba moo ko moom ba ci jigéen ba ca tabaxukaayu ndaala moo ko moom ba ci jigéen ja ca bureau ba moo ko moom ba ca jigéen ja ca école ba di jàngale moo ko moom ba ca jigéen ja ca section politique ya di defar moo ko moom ñépp ko moom ku ci génne sa bopp rek xamuloo lu xew wata mhm. lu mat a xel la ndax gëm yàlla rek mooy yombal jubóo gëm yàlla rek mooy yombal juboo waaw bi nu xamee tubaab nag la tëral charte soog a juboo ba nu xamagul tubaab dañuy juboo ba noppi ba ñëpp miinante ñu soog a tëral charte waaye di juboo tëral charte duma ko nangu nañu def li virgule bi point bi nangam nangam ngëm des waaw jullit ak jullit ngëm des na ku bëgg a sa mbokk yàlla ngay indi bu jubóo ba amee bu ngeen àndandoo julli weer àndandoo euh, waxtaan weer àndandoo jàng yàlla weer lu ngeen tëralati mu julli waaye wóoluwuma de dañu bind de charte nangam charte nangam yàlla téye boppam waaw du def tawfiq du def leer te bu tawfiq amul leer amul dara du jàll waaw mu mel ni kon nag lu ma ta bàyyi xel méthode yi baax nag méthode yi ngay topp di jëf ba baax dugg yàlla indi na ko yépp ci alquran ñett la bu jëkk bi amul illa bu jëkk bi amul illa am na nag comparaison am na ko guddi gi yàlla bi yonent bi rañaanee yàlla invité ko mu dem fekki kooku amul illa kooku amul illa mbaax gu ñu rafleel kenn du ko àtte fenn duñ ko tëral ci benn loi duñ ko tëral ci dara mbaax gu ñu rafleel la amul illa amul amul jaam bu gont boromam ni ko kaay la mu ko waral pour mu ñëw bu ko àdduna doon jéem dinañu def nangami téeméeri siècle mu soog a noppi ba nag benn minute bu ko ci joxee waruwaay wu mën a dem fu ne te du paan yëngal lu masula yëngu mukk xeeti militaire yi ñuy tudde almalaïka ndax almalaïka étymologiquement mooy messager mi ngi jóge ci baat bu ñoo wax al uluka te al uluka moo di message yàlla bu la bëggula fitnaal dafa naan sama messager yi ne xam na ni bu la joxee détail yu ku ne na mu mel di nga dund téeméeri milliards ci siècle te du sotti mu faf ni message yi rek mu di al malaika waaw moo tax sëriñ Babacar wax na ko ci addil ulukata waaw min asiri alaqatin qaasil hawajisi qaasil hawajisi waaw al hawajis mooy li ngeen di tudde maanaa xam nga réflexe réflexe gisuloo médecin bu lay seet ndax am na lu manqué ci yow walla amul lu manqué ci yow mu jël marto bu tuuti di ko dóor ci sa oom di seet nu sa oom di réagir pour xam fu sa réflexe yi toll moo tax mu di ko def waaye Sëriñ Babacar nee na ku ko def ci man doo gis benn réaction ndax sama réflexe yépp wow nañu niis nañu lu tax li ma tiimagul raw bu Sayid Cheikh Ahmad Tijani waaw moo tax ku ne am nga kilifa waaw ah. addil ulukata min assiri alaqatin ma bëggoon dem de mënuma dem ñépp libre nañu libre ndax fii ma jonka daal bu dul Maodo du ma fi jóg mukk ba di ko xalaat di ko mettit lu ba reflex yépp jeex na boo ko nattoo rek doo gis ma dese ca dara waaye Maodo ko ci jiitu doo ko ci jiitu qadallahu qadi shawqi Eh, Mouhamad Sourou Saban nee ma ba ma juddoo ci sama ndey ba léegi dëkk màkk jànge màkk jàngale màkk taalife màkk moom ñi mosuma dégg baytu bu toll noonu waaw waaw xana allahu qadi shawq wal bayn wal مديحي أبا العباس أحمد ذا الفضل دوائي على دائي زيارة روضه وإن لم أنل فالداء في الزيت والعظيم walaay ndeysaan damay romb Maroc ñu ni doo àgg Fass ma ni déedéet sama programme àggu waaye nag itam bu mois de juillet jeexee ma dem seeti Cheikh euh, ñu d'accord ak man ci loolu ma dem wàññeeku ba jógee Tunis jëm si Dakar ñu ni fokk ñu jaari euh, euh, euh, Casa ndax avion bi laaj na ko ñu jaari Casa ba ñuy laata àgg rek waa ji amee micro bi ni maa ngi leen di yëgal ni tiim ngeen dëkk bu sell boobu leen ñu def sëñ Cheikh Ahmed Tijani di ko de Fass mu ngi ci suuf fi mu ne ma ne ko kon na góor gi affaire baa waaw ndax boo demul ñu ñëw moo tax guddi googu la ci yàlla waajal yonent bi kooku may bu rappelewul la may bu kenn xamul eh, eh, loo naan ca lañ ko teg ñu yëngal yëpp yëngal yëpp Muhammad taxaw ni tànn naa yàlla yàlla taxaw ni tànn naa Muhammad bokk Muhammad yi ni yàlla ñu ngi tànn laata ak uzza waaw ñu nga ne jonkan waaw te ñëw bokk jund bi bokk deret bi bokk néeg bi yàlla ni nag kon nag nañu defe nii ku séddu séddu naa ganale muhammad guddi ga jot ñu dale ko ca min al masjid al haram ila al masjid al aqsa mu ñëw fekk ñetti ñetti doj ya doj bii ci Ibrahim tëraloo doom ba pour rey ko rek jote ko bakkan ñëpp yàlla soppi ko jox ko xar mu rey ko muy tabaski ba léegi dot wa doom ba njege naayoo woon pour ñu rendi ko nekk nii doj bi euh, sayidatuna Maryam euh, euh, suwoonoo woon ba isa ibnu mariam di gane àdduna nekk nii muy ñaari doj ñu indi ba ko ñetteel ni ko teg ci sa ñaari tànk jëm fa nga jëm muy ñetti doj waaw diine yee bopp nit ñee xamul rek waaw euh, mu dem la yëngu yëpp yëngu waaw la yëngu yëpp yëngu ba mu àgg fa awxaa contrat ya ñu doon si yente fa awxaa ila abdihi ma awxaa ma kadaba al fuaadu ma raa أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جبريل و جبريل كي جيتي ونكو ما شيف دي بروتوكول توبما بوما جاد مك بوما جاد ريك ريرتي الحقائق العلويه واو مو كت كت كوت كوت ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى بنيو أجيت سدرة المنتهى نك جبريل إفاسي كن جسدو فمي جم فوف لا عند سدرة المنتهى مو إفاسي كومبليتمان عندها جنة المأوى يونتي بمو بوكل بوبم تسال دكاتره لو تمن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يلا ونكو حقائق يب وخد ممتي المدب يتد يب آه، نيسان تب بابا وقتو نمو بوكال درت ñu ngay rey ay xar di doj yi ni yëngu ñu naar ñu di ko tudde laata ak uzza waaw di leen woo naan leen yéene ci yàlla ngeen ñu ni yéen mënuñu sax tontu waaw pour wax la yàlla bu dee maye na mu cay xëre ak bu dee xañe na mu cay xëre wallaay bu la dee may daf lay may ba mu jax tak bu la dee xañ daf lay xañ ba mu jax tak